Euh, ki nga xamante ne rek moom mooy euh, Boubacar Ba moom ci forum euh, du justiciable la bokk bokk ci société civile bi waaye ñu gis ne lu ëpp ci société civile bi rek tey ji ñëwuñu teew yow mi nga xamante ne nag da nga ñëw pour bokk ci dialogue bi déjà naka nga gisee lu fekk tey lu ëpp ci société civile bi ñoom nanguwuñoo ñëw ah, bokk ci dialogue bi d'abord loolu moom je pense que nekkul lu lu rafet parce que il faut ñu xam lan mooy rôle société civile xam nga société civile ñun wutuñu nguur ñun wutuñu pouvoir ñun dañ fi nekk pour nekk des acteurs de veille tey bu fekkente ni les acteurs politiques dañu jàppante seen biir bu fekkente ni les acteurs politiques dafa am xiiroo ŋaaye ci seen biir société civile moo war a jouer les bons offices moo war a fexe naka lay def ba diggante boobu mën a ratax boole parti waaye léegi société civile boobu nga xam ne moo war a rataxal diggante yi moo war a def de telle sorte que acteurs politiques yi nga xam ne dafa dañu am xiiroo ak ŋaayoo ñu mën a toog mën a waxtaan léegi bu dee société civile boobu dafa croiser les bras kan mooy jubale acteur politique yi boo xoolee dans l'histoire politique du Sénégal consultation fu mu mës a amee dialogue fu mu mës a amee les acteurs de la société civile ñoo nekkoon au devant te may fàttali di wax ka ni ak acquis démocratique yi nga xam ne yëpp jot nañ ko am dañ ko am à travers de consultations boo jëlee euh, dialogue référence bi ñuy wax muy le code consensuel de 1992 loolu mun naa ni acteurs civils yi dañ ci dem à fond donc maintenant nag le fait que ñu am ay acteurs de la société civile yu boycotté loolu moom c'est inédit il faut que d'ailleurs ñi ñu xam ko c'est inédit moo ngi door a am Sénégal dans l'histoire politique ñu gis ay acteurs de la société civile boycotté dialogue kaa leen ñu waxtaan ñu xool naka la ñuy def ba trouver solution kaa leen ñu waxtaan ñu xool naka la ñuy def ba trouver datu élection yi acteurs politiques yi ñoom demuñu mën na leen comprendre parce que les acteurs politiques yàgg nañu def politique de la chaise vide les acteurs politiques yàgg nañu boycotté loolu c'est des éléments de langage yoo xam ni ci acteurs politiques yi lañ leen ko xamee. léegi nag ñoom bu ñu toogee ne demuñu maanaam société civile ñoo war a ñëw leen ah opposition ñëw leen ñu fexe xool nu ñuy waxtaanee nga dem ci pouvoir waxtaan ak ñoom pour rapprocher les deux parties. léegi nag bu dee société civile boobu dafa toog léegi kan mooy boole les acteurs politiques moo tax man boycott bi nga xam ni une partie de la société civile lañ ko def man mënoo ko comprendre te jàpp naa ne ñun waruñu faillir à notre mission. nu ne sommes pas des acteurs politiques ñun defuñu politique. politique les politiciens waruñu leen surtout l'opposition wala muy pouvoir waruñu leen fekk ñoom ci seen i mouvance am na élément de langage yoo xam ni politiciens yi ñoom ñoo ko moom ay boycott ay politique de la chose vide. mais un acteur de la société civile kaay ñu waxtaan ñu trouver date yow même bu fekkee ne da am tey ay exigences même bu fekkente ne un acteur de la société civile da nga bëgg ñu appliquer les décisions euh, du conseil constitutionnel da ngay ñëw ci dialogue bi ngay présent man dama bëgg conseil constitutionnel li mu wax nañ ko appliquer mais déjà boo toogee rek génn terme boycott da ngay gën a encourager da ngay gën a légitimer opposition bi ci lu mu ne. waaye ndax jàppaloo ne tey jii li nga xam ne mooy 16 candidats yi wax nañ ko mooy ne ñoom bokkuñu ci dialogue bi. ñi nga xamante ne mooy les candidats spoliés ñoom ñoo nar a ñëw te ba pare li ñu gis mooy ne tey dafa ndax ragal nga jàkk nga ne tey jii. lu dina mën a am solution. non li gënoon mooy tey képp kuy mooy euh, les candidats ñu ñëw. yi nga xam ne ñoom la conseil constitutionnel retenir bu ñu sañoon dañuy ñëw ci dialogue bi ñi nga xam ne mooy les candidats spoliés dañuy ñëw mais également les forces vives de la nation parce que aussi Sénégal il faut ñu xam ne que les acteurs politiques donc ñoom newuñu fi les acteurs politiques ils ne font pas euh, un pour cent donc tey bu ñu sañoon ba pare moo wax la lu am solo soxna si dañu nekk ci crise crise boobu pour ñu génn si xam nga mu ñu si génne ñu toog ci taabal waxtaan gis nga bu ko deful dañuy xeex te bu ñu def bu ñu deful tamit dina am ñeneen ñoo xam ni nañ xam ne que ñun rek newuñ si réew mi ah am na ñeneen ñoo xam ne dañ ko bokk ak ñoom ñoom également ci seen jëmi bopp bu fekkente ni defuñu lu ñu war a def ñooñu il peut prendre le pouvoir donc li gën soxna si waxtaan moom par force day am donc ndax après lay doon wala avant du waxtaan dina am tey bu ma soñoon tey acteur politique yëpp et ça c'est un message que nous lançons loolu mooy def suñu force Sénégal Sénégal boo gisee boobu ba léegi on n'a pas encore sombré c'est parce que dafa am ay piliers yoo xam ne ci la ñuy ci la ñuy sukkandiku Sénégal boo gisee boobu ba léegi ñuy tenir c'est parce que dialogue mooy sunu force de Léopold Sédar Senghor en passant par Abdou Diouf Abdoulaye Wade jusqu'au président Macky Sall on a toujours dialogué. tey yow lan mooy say attente ci ak dialogue bi. mais attente yi déjà mooy ñu gaaw jàpp datu élection yi bi njëkk. loolu mooy principale attente bi nga xam ne moo ñu fi indi naka la ñuy def ba le plus rapidement possible ñu jàpp benn boo xam ne bu ko defee. dinañ mën a dem vers des élections transparentes vers des élections inclusives mais également vers des élections libres